了。 ca waar wa di concept bi nga xamante ni wàllu digital news daf leen ko indil àndandoo ci ak kuréel gi nga xamante ni moom moo di SAED mu di concept boo xamante ni dafa jëm rek ci nemmeeku ji baykat yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkee ci vallée di fleuve Sénégal yoon wi ñu seeti ji soxna si nga xamante ni moom moo di Fabinta yi mu dëkkee ci mbagam di yëngu ci wàllu mbayum ceeb bokk nag ci réseau bi nga xamante ni moom moo di réseau des femmes agricultrices du Nord REFA Hann moom nag muy bay lu yaatu ci ceeb nekkee nag fi nga xamante ni moom moo di delta de la vallée du fleuve Sénégal. waaw man maa ngi tudd Fabinte Gueye maa ngi dëkk Mbagam waa di béykat nag d'origine doomu baykat laa bëgg a wax sax loo xam ne ci deret bi la nekk dañ ciy judd màgg ci yaru ci nekk ci nag naaka nekk ci nag fa si yéenee nekk rek ak. ku ñu bëgg rek ñoo fekk suñu ñu ànd ak yow ci nekk bi ñu nekk ci mbay mi parce que dañ ci fier ndax lii rek lañ xam. waaw tey fekk ngeen ñu fii ci waar bi euh, yaakaar naa fu ñu xam ngeen ñu fekk ci li ñu kontaan aussi ngeen ñu fekk ci bëgg ak xol bu sedd gu ngeen ñu fi fekkee waaw ñu leen ci sant yéen vraiment di leen ci gërëm di leen ci ñaanal yàlla. yàlla def na euh, bi ñu tolloo ci première phase yéen waa sayet ñëwoon ngeen fi. donc ànd ak ñun ci lii ndax booba temps fii xëy na bu ngeen xoolee seen image daa ngeen ko gis yaatu woon na lool waaye ndoxu kese ngeen doon gis booba xëy na yàlla suturaal nañu ba tey si tey jaar nañu deuxième phase muy bi mu werte tey yàlla dem ba ñu toll troisième phase mooy bi nga xamante ni ceeb bi génn na ci tool yi kon alhamdulilah la ñuy wax di sant yàlla bu baax a baax a baax dolli ci liñ ko sant euh, yaatuwaay bi toll woon na ci 30 hectares 30 hectares mais euh, 30 hectares yëpp wax dëgg yàlla dem na campagne alhamdulilah sant nañ yàlla rek ndax euh, li ci génn aussi man fekk na mooy suñu wërsëg waaw lu ci génn kës néew mooy suñu wërsëg waaw cycle court parce que dañu yéex a commencer dañu amoon problème mu tardement mu aménagement beeg euh, mbay mi xaw a parce que ñii bay da ngay toog di leen xaar ñoom dañuy yor seeni programme boo mën nga ñëw déposer verser xaalis bi da ngay xaar rek ba ñoom ñu programme la doog a ñëw ci yow bu dee gladeur bi noonu lañu def bu dee mbay mi aussi noonu lañu la ñu def bi koy béy looloo tax tardement bi xaw a am tuuti boobu man la si dernière ñi nga xamante ni ñoo mujjee ji ci lañ bokk looloo tax ñu jël cycle court nda ñun préféré woon nañ jël cycle long mais bi ñu demee ba xam ni temps bi passé na dañoo mujj jël cycle court ñu def ko. Montine moom mi nga xamante ne sax wàllu financement xawoon na nekk tuuti jafe-jafe ci moom góor góorgóorlu na nag ba àggale liggéeyam ca na mu waree dellu si waat na nag ci leeral li nga xamante ni moom moo di jafe-jafe yi aju woon ci financement boobule ba noppi nag di tàllal loxo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di banque agricole ngir ñu ñëw taxawu leen ci wàll wi. waaw financement bu ñu béyee nag euh, xaw na compliqué tuuti parce microcrète moom moo ñu moo ñu waroon a accompagner si cadre REFAN réseau des femmes agricultrices du nord waaw ak ONU Femmes ak suñu partenaires yi ñu àndaloon mais wax dëgg yàlla dañ diggoon ay financement nag financement yoo xam ne waa waa ONU Femmes ñëw nañu ba fii vraiment ba ni jigéen ñi bind leen loolu sax moo gën a tax ñu poussé wu dugg ci mbay mi ak dugin bi ndax bu jëkk dañ doon dugg mais ay benn hectare ñaari hectare ñetti hectare mais xam na ñoom it bu ñu nekkee suñu ginnaaw puus ñu pour ñu dugg ci mbay mi te mu ni dugg leen yéen jigéen ñi dugg leen ba feeñ ci looloo tax ñu dugg ci euh, espace bu xaw yaatu bi waaw bu ñu duggee nag wax dëgg yàlla euh, li ñu bëggoon ah, mujjul antu ndax dañoo bëgg doon xaar financement mais finalement mujjuñu jot financement mais nag comme que ñun lii lañ xam te dugg nañu ba pare te kenn mësul gis waalo waalo bu dugg ba pare di dellu ginnaaw ah ñu forcé rek jàll ak beaucoup de difficulté nag vraiment beaucoup de difficulté la ñu la ñu la ñu duggee ba waaye nag alhamdulilahi rabil alamin ndax yàlla moom mooy jàlle jaam yi te yàlla comme que indi nañu ba fii rek yaakaar naa yàlla bokk na si ñu mu jàlle ñu koy sant bu baax di ko gërëmee ci ay kàddoom muy xamle rek ni li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu rendement yi dal na xel donte nag amuñu ci woon li ñu bëggoon yëpp waaye nag am na loo xamante ne mën nañ ca téye ndax nag ñoom ñi nga xamante ne la ñu bayoon moom moo di cycle court mu nekk loo xamante ne li ko waral moom moo di retard bi nga xamante ne accusé nañ ko te lépp rek la ca tegu moom moo di wàllu financement yi nga xamante ne doon nañ ko seenu mu xawoon a taga tembe Euh, rendement yi alhamdulilah sant nañu yàlla bu baax ci li jot a sauvé parce que comme ni ma la waxoon rek euh, dafa am loo xamante ni xorom bi nangu na ko am loo xamante ni picc yi for nañ ko parce que début bi dañoo doon jànkoonteel euh, difficulté yu bëri ci picc yu doon for ceeb bi ci biir ndox mi yooyu yëpp mi ngi si après picc aussi amoon na picc ay picc yu doon yàq yooyu yëpp ñu ngi fi xëy na ku nekk jël na si wërsëgam daal mais li ñu desee xëy na mooy suñu wërsëg sant yàlla. ñu gën a gàllankoor nag euh, aménagement terrain bi ci la bokk parce que aménagement bi des na xëy na ñu ko bëggee woon amee wuñ ko ko à 100 pour cent xëy na bu fekkoon ñu amee ko ko à 100 pour cent xëy na euh, du am difficulté aussi financement bi euh, bu ñu koy demee ba di ko jot ñu mun ko jot à temps parce que comme que xaalis mooy liggéey mbay. te xaalis bi bu fekkee tardé na pour nga jot ko rek ñun même bu ñu ko joxuñu ñu ko mais instant bi ñu ko doon jox sax booba fekk na kenn ku nekk départ nga ba dem ñu jot a jot as néew. waaw comme que moom moo fi nekk banque agricole vraiment ñu ngi koy tàllal loxo pour mu gën a bàyyi xel ci baykat yi ak jigéen ñi ak xale yi jeunes yi vraiment na ci gën a bàyyi xel ci accompagner leen pour ñu gën a ñeme ndax lii moom dañ ko def rek pour ñu ñeme gëm li gën a gëm liñ nekk. waaw léegi kon nag ñoom nañu gën a jàpp pour ñu gën a ñemee gën a gëm ci liñ nekk waaw bokk na nag ci li nga xamanteni ay jafé jafé la ci ñom moom moo di divagation bi ndax nag nemmeeku nañu laata ñom ñuy paré sax ba di évacuer li nga xamanteni ni seen production nak yi tambalé nañu dugg ci tool yi di nak eh, xaw leen teg ay jafé jafé loli yi bokk nag ci ay contraintes yo xamanteni ñi ngi loxo bu baax autorité yi ngir ñu gën ci bayyi xel ngeen len taxawu ci walu wi waaw yooyu yëpp euh, ay ay ay euh, gàllankoor la yu bokk ci may mi ndax nag yi ba yéen a ngi koy gis nii ni leen wëree te ñoom depuis ceeb bi nekk ci biir ndox mi nii la leen nag yi wëree pël yi taxaw te mel ni rek nag yi nañu nangu ceeb bi ci biir booba ceeb bi ñoru xam nga ñu ànd ak moom booy ay weer a ngi nii yoo xamante ni mënuñoo dem seen kër yi munuñoo toog lekk munuñoo taan naan toog naan parce que lii xam nga lii c'est catastrophique vraiment lii métti na trop ci nit koo xam ne ki da nga jël sa alal def ci suuf si yaakaaroo lu dul moom ay nag ñëw ni dañ koy nangu ci say loxo bañuñu ñu ci càmm mais nañ ñu may ba nga xamante ni pare nañu ñu ñëw jël ñax mi parce que ñax mi dañu soxla te ñun ñax mi soxla wuñu ko vraiment waa loolu daal vraiment war nañ ci gën a taxaw gën ci mun a waaye nag moom mi mu di gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa SAED ngir taxawu gi nga xamante ne ma ngay xamle ni ña nga koy taxawu ci jamono bu ne mu nekk nag loo xamante ne ma ngi koy rafetlu bu baax a baax te it di xamle rek li nga xamante ni moom moo di suivi bi nga xamante ni ñi ngi ko koy defal à temps réel waaye nag delluwaat di leen ñaax ak di leen tàllal loxo ngir rek lu ñu jàpp rek mu gën a bari fexe rek ñu gën a yokk rek waaye nag lépp li nga xamante ne taxawaay la ñoom gis nañ ko bu. waaw waa SAED euh, balaa ma leen di laaj dama leen di remercier ba pare particulièrement madame Ndoye vraiment madame nii la def bi ñuy ji nii la sole ay bootam def délégation bu am solo ni leen ñëw leen ngeen xooli surtout jigéen ñi. xëy na góor ñi seet na leen ànd na ak ñoom mais jigéen ñi aussi ndax lii rek vraiment firnde la ci li mu doon def te ci commencement bi la commencé woon man duma toog une semaine te vocalu ma laaj ma Fatou Bintou foo toll. yàlla xam na ni machine bi bu mu duggee ci tool bi sama xel fàtte woon na boo wax mais daf ma vocal laaj ma Fatou Bintou foo toll ak ci loo nekk mi ngi doon lijjanti machine boo xamante ni si sax dafa bëggoon mu jóge anam bi la ma wax ni ma ñu ngi lijjanti ay machine pour ñu ñëw sauver leen balaa nawet bi di ñëw. waaw ci loolu la nekkoon far yàlla def ma lijjanti man it ba yàlla jox ma machine bi mu ñëw xëy na dindi li fi jot a nekk mais ñu ngi leen di sant bu baax di leen seen taxawaay rafet na ndax vraiment jot nañu suñu intrant yi nga xamante ni sayet moom lañu ñu diggee woon ak ñun jot nañ ko à temps te jot nañ ko niñ ko war a jote wax dëgg yàlla li ci des nag xanaa ñu gën a ñëw gën ñoo jege ndax moom rien que jege nañ ñu mais dañuy ñaan rek ñu gën ñoo jege gën a indi nag ndimbal bi ak jàppale bi xam ne ñun lii rek moom la ñu gëm ci ci lañ nekk waaw ñi ngi ci nag vraiment ñi ngi ci waaye nag nañu gën a dolli ndax lu ñu dolli rek ñu ne dañuy gën a sant yàlla gën a génn résultat ndax résultat rek lañ bëgg ci wàllu hivernage nag mu xam le ni mi ngi koy waajal waaye nag faaw rek ñu dimbale leen taxawu leen jàppale leen bu baax ci li nga xamante ne ñoom bëgg nañ ko te mu jëm ci wàllu rek ñëw ci wàllu réfection yi jàppale leen ci aménagement bi te it rek leen taxawu tamit ci lu jëm ci wàllu financement yi ndax nag yooyu yëpp rek dafay nekk loo xamante ni benn bu ci sooxe rek mën na gàllankoor li nga xamante ni moom moo di wàllu wiile. ñu ngi koy waajal. waaw ñuy waajal hivernage si kaw accompagnant ah, ñu accompagner ñu aussi si hivernage bi benn mooy problème mu aménagement yi leen wax ak euh, financement yi ñu mën a teel a jot ak suuf si yi nga xamante ni am na accès vraiment buñ ñu ci mënee dim ndax jigéen ñi seen kàddu yàgg na ci wax ni amuñu suuf amuñu suuf amuñu suuf donc suuf bi ñu am ak néew dañ koo loué te conditions yi jafe lañ koy jot bu fekkee aussi am nañu suuf yoo xamante ni disponible na pour jigéen ñi dem fa bay ko bu ñu ci mënee jàppale ñu jàppale ñu si ñu dem ci suuf boobu. ca noona sax mu cay xamle rek nii am na yéene def sax lu ëpp ñaari yoon li nga xamante ni moom la defoon donte moom defoon na lu tollook juróom fukki hectare muy xamle rek nii am na yéene def lu ko ëpp foofu. non condition yi bu jegee man mën naa leen laaj 200 hectares bi ngeen ma ko joxee incha allah dinaa ko bay war ngeen jox ma 100 boog bu am 200 ngeen jox ma 100 boog ah yàlla de na ko ndax xam naa ni moos eh, expérience baa ngi fi ndax mbay moom expérience la boo ko xasee ba am expérience bi am fitu parce que daaw bu ñuy commencé bay ay 1 ay 0,50 lañ doon commencé tey macha allah dem nañu ba am fitu 30 hectares kon bu ma la waxee 200 ko joxee dinañ ko bay kon kay xam nga nii. loolu am na ah ah li ma ciy yokk mooy gën a sant rek gën a gërëm DG Sayet vraiment mu ngi def waaram ñi topp ci moom ñi ngi def seen waar waaye nag nañu gën a jàpp rek gën ñoo jege gën ñoo dimbali ci nga mbay mi ndax ñoo ñu ci mën a dimbali loolu lañ leen di ñaan. Madame Ndoye directrice Sayet délégation bu Dagana. te teewoon foofa ngir rek seeti ki nga xamante ni moom moo di Fabinta ñëw nag bokk ak moom li nga xamante ni moom moo di émission ca waar wa mi ngi dellu si waat di xamle ana ban la Fabinta am ci li nga xamante ni moom moo di liggéeyu tool mu di nag ay seede yu am solo yoo xamante ne jàpp nañ ni kenn ku ci nekk rek mën na cee roy ngir mën a doon royukaay ci li nga xamante ni moom moo di waar wi nga xamante ni ci la baykat yi nekkee. Omar waaw ah, émission ca waar wa léegi góor ñi ci waar wa waaye aussi jigéen ñi ci waar wi donc yaakaar naa ñu ngi fii tey ak benn jigéen ah, Fa Binta Gueye dëkk Mbagam nekk ah, en tout cas jàmbaaru fakk tëdd aussi nekk aussi membre ci Refane moom ren ci campagne contre saison bi bii mooy sunu ñaareelu yoon ci bi muy door campagne bi ñëw nañ xool ko di ko suivre nag li tubaab di wax am ko à l'œil loolu lañ def ñëw nañ fi xool ko bi muy récolter aussi ñëw nañ fi xool ñu gis aussi liggéey bu am solo boo xam ne def na ko malgré jafe-jafe yi nga xam ni wax na ko fi aussi donc je pense que campagne bi dégg ngeen ko wax na vraiment réalisation yi am solo yu mu def def na 30 hectares même bu fekkee yenn yi sax am na quelques abandons yoo xam ni xëy na yenn yi jafe-jafe aménagement la ak picc yeeg yooyu léegi nag ma ñëw ci jafe yooyu donc yaakaar naa moo ci solo pour naka la ñu mën a def ba lever contrainte yooyu mën a jàppale wax jigéen ñi bu baax a baax yaakaar naa wax na fi problème mu aménagement euh, wax na fi problème mu financement aussi financement bi aussi ma ci euh, profito rek lancer un message à la LBA di ko ñaan mu accompagner ñu mel ni Fa Binta Gueye nee na ma déposé une expression de besoin aussi xam naa aussi dinañ ko lëkkale ak la banque pour mu jàppale ko bu baax a baax wax na fi wàllu matériel agricole aussi matériel agricole bi aussi di dinañ ko ci bàyyi xel bu baax a baax parce que réalisation yu am solo yi nga xam ne def na ko en tant que jigéen mais beneen bi ci des wàllu aménagement yi aussi wax na ko donc dinañ ko ci jàppale bu ñu amatee programme fexe aussi man programme yi léegi damay génne cëru jigéen ñi que sa soit aménagement wala que ça soit matériel agricole dañ leen génneel seen cër incha allah daañ ko bàyyi xel bu baax a baax di ko encouragé di ko félicité aussi ci résultat yu am solo yi mu def di ko wax ni noonu la waar wi moom amul góor amul jigéen ku ci nekk rek émission bi dana la fekk ba sa tool wane la euh, pour que nit ñi mën a xam ni aussi malgré jafe-jafe yi àdduna jafe-jafe ci ñàkk mais mënul tere nit mu liggéey

ci wàllu divagation bi moom mi kilifa gi mu wax ci di xamle rek ana yan jéego lañ ca jot a def muy xamle nag waxtaan yi nga xamante ne administration territoriale bi yàgg na ko ciy jiite te it mu jëm rek xool ci ay pexe yoo xamante ne dina tax mbir mi dal wàññeeku waaye nag la ñu ca nemmeeku moo di ba tey njaw des na xambin ci wàllu woowule ndax naka ñi nga xamante ne ñoom ñoo di liggéey ci tool yooyu laata ñuy pare rek ñi nga xamante ni moom moo di sàmmkat yi ak jur gi ñu yor dañuy daal di ñëw rekk sonal leen loolu loolu nag tax mu des rek ba tey di gëna rekk rek waat ñi nga xamante ne ñoom ñoo di acteurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci wàll wi moo xam sàmmkat yi moo xam muy borom jur gi waaye nag autorités yi nga xamante ne ñoom rek ñoom ñoo mën a jeexal situation bile. waaw bi yaa la. loolu feebar la ci delta bi fii donc euh, yaakaar naa ay jéego yu am solo aussi def nañ fi ay réunion de sensibilisation aussi pour que euh, vraiment sous-préfet aussi liggéey ci liggéey bu am solo ànd ko ak la division d'appui aux collectivités aussi DADC pour que ñu xool aussi naka la ñu euh, mën a mayantee rek ba béykat bi bay ba pare nag yi mën a dugg léegi li ci des nag problème mu problème application la léegi application nag moom moo posé problème mais autorité yaa ngi ci et yaakaar na aussi nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax may ñaan aussi euh, sàmmkat yi aussi li ma faral di li ma faraloon di wax rek booy dem ca banque ba di négocier crédit geenu nag du la topp booy jël crédit na ca tool ba di samp mbaar euh, kenn du la fa fekk jàppale la kon nag war nañu laa mën a may ba nga pare ñu doog a ñëw dugg ci euh, tool bi parce espace bi nag ku ne aussi da ci am wàll mais yaakaar na buñ buñ ko organiser rek ku ne mën na jël wàllam te du yàqal euh, euh, kii moromam